na weetoo ah, sim laay maa ngi doore ay ay ñaay maa koy jaawo kal jëf saamba maare cubu jërek di saan laaj ci borom maa yaay salaamaaleykum mbokk yi yen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv point com ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar spécial JT lamb ngeen koy am tous les samedis comme ni ma leen ko doon waxee rek tey nag JT décentralisé ñu ko defee fii ci Gambie ñu ñëw fekk fii ay mbëru Sénégal di ay doomu Sénégal di ay doomu Gambie mu nekk soq ak bébé ñu fekk leen fii nag tey hôtel White House di hôtelu suñu xarit suñu jigéen Xajatu Sow di jàppale mbëru Gambie ndax gis nañ fi xoyantaan démb fi lañ ko jëlee ak yeneen mbër yëpp moo tax tey ñu fi defee JT Lamb invité ci nag ñaari doomu Sénégal Sokh am combat ñoo fii di ko waajal digganteem ak Gamou Gueye kii nag amagul combat waaye muy ngi préparé ndax dañ koy gis ci mbappat yi xëy na moo tax muy daas fanaanal Bébé Diène ak Sokh waaye dañuy commencé waxtaan bi ci Sokh ak ay nuyoo Sokh nuyu naa la waaw Lamine maa lay fay di wax onze bi la bisimilah inawali yàlla onze billah bisimila ina waali yàlla jërë jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq jërëjëfe Baye mbay Mbaye jërëjëfe maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam maa ngi nuyu waa Touba di leen sant di leen gërëm di nuyu waa Tiwaawan wa Njaasaan waa kawlak fépp fu tarixat diiney lislaam nekk maa ngi leen di bëggee di leen nuyu di leen siyaar di sàkku ci seen jëmm ñaan di ñaan Sénégal yàlla na fa jàmm yàgg di ñaan Pikine gëm dëkk juddoo fa yaroo fa yàlla na fa jàmm yàgg yàlla na fa yeneen champion génn yàlla na fa defet gëj ci barke yonent bi jaajëf Lamine. jaajëf Bébé nuyu naa waaw maa lay fay ginnaaw ma sant yàlla julli si bi sant sama ñaari waajur waaw. di nuyu sama sëriñ sëñ Abdou Karim di ko sant di wax ne ni jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba di nuyu bépp murida ak sëriñ yi yëpp tarixa tijaan waaw laa yi ñaseen yi ñëpp mbaa nuyu ñëpp waaw di nuyu fu ma dëkk waaw Medina maa leen di nuyu di leen bëggee di leen ñaanal jàmm seen doom muy nii waaw jóge fee rek ànd ak sama doom yaay ñëw fi entraînement pare ko waaw nañu xaar. am na solo léegi nag Youssouf Fall waxtaan bi dañ koy tënk ci saison bi nga xamante ni ci lañ jógee yenn ci ay combat yoo xamante ne amoon nañ fa fas nañ ci yéene waxtaan ak Sokh ak Bébé Diène te ñu ñëwee nag wax fi waxtaan tamit li nga xamante ni mooy Bébé Diène ci mbapat bi nga xamante ni daf koy def ren nag gisuñu ko lu bari loolu tamit fas nañ ci yéene waxtaan ak moom waaye Sokh moom lay ubbee Pikine seen seen saison ren nan ko ko gisee. waaw sant yàlla rek sant yàlla dooli sant yàlla. parce que tey àdduna noonu la Ama balde amul combat année balance la def boo Niang bëre yàlla dogal mu ñàkk Eumeu seen bëre yàlla dogal mu ñàkk comprendre nga dañ koy sante suñu borom parce que tegale nañ fi ay at yoo xam ne ñoom mbër yi ma limal yëpp seen ginnaaw laalu suuf te yaakaar naa defaluñu yàlla lu waral tey mu leen di may di xañ seeni morom tey tamit ñi mu yi ñi yàlla may xañ leen ñoom defaluñ ko yàlla maanaam doon nañ am ay taakusaan di am ay ndam muy neex ñuy sibile di dem su demee nii dañuy sant suñu borom santaat suñu borom bu baax ku nekk xam na ni Boy Niang ba muy bëreeg la de Guiers 2 bokk na ci combat yi mu gën a bëgg ci làmbam comprendre nga mais làmb moo tëddee noonu dama koy ñaanal mu doon defetam bu mujj ci làmb Eumeu Sène waxi noppi tey amatul lu muy prouver ci làmb ndax mooy le roi des arènes jël bi mu jëlaat Modou Lo da ko doon jël pour confirmer parce que dafa am fu ñu jaaroon yàlla weddi gëm na ko dañuy sant suñu borom te xam ne làmb dëkkul fenn day tuxu rek li wér mooy saa su nekk nañuy liggéey rek def li ñu war a def ndam yàlla moo ko yor. année blanche bi dafa mel ni dafa bëri ren jo Jadli est que bëri na. Jadli Jadli waa bëri na. ren kan ren ren ren ce que waaw non ren bëriwul. Ama Baldé bëriwul est-ce que année blanche Ama Baldé ren doon nga ko xaar. non kenn xaaru ko wax dëgg fa yàlla yow mii sax xaaroo ko. parce que xam nga lu tax Ama Baldé mbëru amateur la mbaru àdduna la mbaru askan la sama mbër yàlla na ko Serigne Touba taxaw defal ko ndam bu kawe kawe kawe combat bu am solo sax mu ñëw bëre am ndam parce que xale la te Ama tey ñëpp dañ ko war a ñaanal xam nga lu tax ñu war ko ñaanal soutien de famille la tey ginnaawam dafa diis gan gan gan tey gars dañ ko war a dimbali jàppale ko mu nekk sampion ci làmb parce que foofu la ko ñëpp di xaar. dinañ ci ñëwaat Bébé Diène man yow Soumbédioune laay wax ak yow seen seen bilan wu saison ren nan nga ko gisee. waaw bilan bi xanaa naaj rek waaw bëri nañ sama mag bëri na di sama turandoo waaw waa Diène yàlla def lu muy def ñoom Baba Maal bëri nañ daan ñoom Kirikou bëri naa ren daan waaw di nuyu bëru met naa yëpp waaw su ni ay ñoom xam ma tuwul moteur ñoom kéwél waaw ñoom buur siin ñoom mbay guy gi képp ku yeewa daal mit naa xam ma maa lay bégee di la tiitaroo yaay di leen ñaanal jaamu waaw di nuyu ñëpp. du nuyu ñëpp waaw mais mais mais yow ñaata combat bëre ren. ren benn combat yàlla benn combat laa am. est que jaadu na tamit loolu ci xale. non jaaduwul xam rek tamit di nuyu gaay yi promoteurs yi dañ ñëw tëgg xale yi ndax fu mu ne xale yi ñooy làmb mm-hmm. tey tey xale boo fi yeew goxam moom la am te bu ñu bëree day day neex. supporters yi dañuy génn yaa comme ni nga ko waxee Diène Kaïré bëre ren digganteem ak Quench yow sax bokk nga ci ñi jàppoon ni Diène Kaïré Quench fu arbitre sifflé loxo arbitre bi moo fi bàyyi Quench ndax loolu wax lool moo ci doon moo ci doon ëpp combat bi na mu déroulé est-ce que nga doon xaar. waaw séntu ma si loolu dama bëggoon sama mbër am ndam mais xam nga tamit lu la yàlla jox tamit moom ngay nangu. sante ba sa borom xam na ne leneen luy ñëw mooy daax. lan moo taxoon nga bokk ci ñi nga xamante ne jàppoon nga ne arbitre bu sifflé jën day daan Quench. waaw dama gis lu mu liggéey rek ñuy ànd di liggéey mu doy ma loolu woolu ma pour man bu jàppee Quench làmb ji day jeex mais xam nga tamit Quench ndaanaan la mais bëriwul quoi. Hmm. dafa taxaw. nga daal bëriwul. waaw bëriwul tax dafa taxaw. écurie ba xam nga ñaata combat lañ bëre. écurie ba écurie ba est-ce que du ay six xaw ma huit ans ren bëriwuñu noonu de hmm. waaw. écurie bu doy na écurie Soumbédioune Boy Kaïré nekk fa ngeen di bëre six combats loolu tamit jar na waa waaw jar na xoolaat mais xam nga ñun moom ay xale lañu ñu xam nga man mënu ma wax dara man man maa ngi seen ginnaaw maa fa nekk caat daana maa ngi seen ginnaaw ñoom luñu def rek sama père yi ñoom père Kaïré di leen nuyu baax na ñun ñu ngi seen ginnaaw. lu ñu def rek tamit waaw xëy xëy na lu jot rek yomb. am na solo am na solo sox damay ñëwaat ak rek ci combat Lac 2 Boy Niang combat bi ni mu déroulé comme ni ma ko laajee kii ñu bëre combat bi taxaw ñu ne du làmb buy neex du ñu bëre du ñu xeex dañuy nil combat bi yow tamit est-ce que nil yow bokkoon nga ci ñu ko doon xaar. Lamine avant tout sax damay nuyu moo suma entraîneur moo coach suma kilifa la suma lépp la suma papa suma xarit waaw coach su xam sa cosaan moo nit ku baax la ku sonn si ñun nag ku mën a sonn ci doomu aadama di gërëm taala meng ak Omar Fofana ay doomu ndayam lañ taala meng mooy patron mooy suñu patron ñun ñëpp maa ngi koy gërëm taala maa lay bëggee bu baax combat Boy Niang ak Lac de wax dëgg fa neex yàlla man xaaruma ci woon loolu xam nga lu tax xaaruma ko si parce que xam naa mbër mi lim liggéey xam naa Boy Niang lim liggéey bu baax pare na combat fi mu ko war a teg comprendre nga mais Lamine làmb du doole kese du bëre kese te boo ñaa mbaab refu dafa woon ci côté am trop trop trop trop ci ñi suivre lamb yëpp xam nañ li may wax. ci naka ma lool. xam ma lu tax dugg ci dëkk daan mbër yëpp moo metti comprendre nga dem na ba yow dégg nga média beeg yëpp yi mbër yi doon wax ak yooyu moo taxoon combat bi métti ci moom combat capital la doon bëre mais comme demee na nii man bëgg na man sama mbër buy ñàkk mu ñàkkee ni boo ñaa ñàkkee man bëgg naa lool waaw. ah mais def na jom def fula def fayda. mais mais niil bi tamit est nekkul nekkul nit nit ñi dañ leen di gën a weddi parce que loolu foofu lañ leen fàkkaloon. waaw parce que nit ñi ñoo leen fàkkaloon foofu yàlla suñu borom ñëw nangul waxu nit ñi tey am na loo xam ne tey bu fekkonte ni ñoom ñaar li ñu liggéey rek buñ dalantee day jeex. est tamit nit ñi analyser wuñ seen combat rek tax ñu wax loolu. waaw peut-être mun na nekk parce que mënumaa xam li nekk ci xelu nit ñi man li ma analyser rek laay gis man dama gisoon ni Boy Niang dalanteeg la jageer combat bi day jeex. jàppoon nga ne sax Boy Niang moo ëpp doole parce que moo gën a nekk xale loolu nga doon. waaw te moo ëpp doole sax. ah non loolu mënul nekk. nit ki mun nga ko ëpp doole te doo ko daan loolu am na ci làmb. dàq bëre ëpp doole. waaw te doo daan. mun na nekk. luy waral lool. parce que xam nga lu koy waral làmb li nekk ci ginnaawam moo bari xam nga Lamine tey lu gën a garaaw ci làmb mooy quartier lëmb ngemb la yóbbu la quartier lëmb buñ la ngembee yóbbu la ngay bañkat nekk der la dëgër de champion la la dëgër kenn mënu koo bañal champion benn nit a ko daan muy Eumeu Sène ñi des ñëpp daanuñu Lac de Guiers Lac de champion la ku mu neex ak ku mu naqari parce que tey nit ki wax sa mbaax waaye wàññiwul dara ci sa mbaax mais dama xamoon ni moog Boy Niang seen làmb avantage bi Boy Niang la parce que moo gën a nekk xale bu doole ji nekk ci yaram Boy Niang du nekk ci yaramu Lac de Guiers bokkuñu ñoom ñaar dara. kenn daanu ko Eumeu moo ko daan ba mu tëdd sax jëli bi dese naa leer Modou Lo tamit daan na ko waaw Modou Lo daan na ko par avertissement daan laa la wax jàpp la daan ko Eumeu Sène na ko def ci làmb. keneen ce que loolu bokkul ci li métti combat bi côté Boy Niang loolu bokkul woon lu lu mu doon xalaat. parce que loolu dal na ñu bari ci combat yooyu. la de guerre ñoo loolu dal na ko ci moog ñu bari. la de guerre champion la li mu la mën a gàttal man du ma xuus ci mbër moo xam ne tey faruñu ñu du sama mbër comprendre nga. man Boy Niang laa faraloon yàlla dogal na ci li muy dogal ci combat bi dama koy ñaan mu doon li mujj ci moom te ndam lii yàlla na jig la dëgër deux mu am ci yeneen ndam yu kawe bu bëriwul ak waa Pikine. damay dugg fi comme ñaar doom doomu laa dalal ak doomu kii Medina yow Gris 2 Reug Reug ci laay duggee yow parce que tamit am na lu ma la ci laajoon combat boobu tamit yow tamit nga ni Gris 2 moo man mooy daan fer yooyu noonu xam naa nag fi ngay jaar ak Reug Reug moo tax rek combat bu na mu na ah ñun moom xam nga Medina la ñu am ku yeewoo Medina moom la ñuy faral ba pare combat boobu waaw dañ doon ñaanal yàlla Gris 2 yàlla may ko ndam rek waaw loolu la. nam demee bettul. ah bett na ma moom. Hmm. waaw mais xam nga làmb la xam nga di encourager Reug Reug waaw. lan lan mooy lan mooy waral combat am combat bi jeex nga nga nga am ci déception maanaam mbetteel am ci. non ma mbër la ñu daan nit kay bu ñu daanee sa mbër da ngay am mbetteel euh, lii doo da am lu metti soo xoolee qualité Reug Reug xool qualité Gris 2 est-ce que mbetteel war naa mën am wala da nga jàpp ni Reug Gris 2 am na ay qualité yoo xamante ne mën na daal ku dul Reug Reug waaw xam nga simple ak arène moom bokkuñu pour man xam ma muy loolu mais xam ma tam yàlla mooy dogal quoi man dama jàpp ni lépp lu am rek yàlla moo ko dogal ndax bisu ñàkk boo ñëwee da ngay ñàkk bisu am moom boo ñëwee par force kenn mënuñ si dara barki Serigne Touba xam ma di encouragé rek Gris di ko ñaanal yàlla beneen yoon yàlla may ko ndam waaw di félicité rek rek xam nga ni champion la waaw. beneen combat euh, Lo boobu waxoon nañ ci sax mais boobu dañ dañ dañ koo cofoon rek boobu tamit dañ ciy ñëwaat laal nga ci sànq 2014 Eumeu Sène Modou Lo daanoon ko mu toogaat 5 ans xamante ni daanuwul ba dégg ci roi des arènes bi mu déggee roi des arènes ci bu kaw Bombardier ñu doon wax benn tournoi diggante moom ak Balla Gaye 2 Modou Lo ak Bombardier mais moom dafa mel ni dafa gisoon ne combat bi rek la war a bëri digganteem ak Modou Lo combat bi taxaw Modou Lo daan ko bi ko bi ko Modou Lo daanee sox na la jàngatee defet boobu. ah Lamine man ñaari yoon yu Modou Lo daan ëmm seen yëpp laa mos a saalit ci làmb ba nit gis ma ma saalit wax dëgg fa neex yàlla bi muy njëkk a daan Eumeu Sène Demba Diop 2014 sapeur yee ma wàccee ci kaw turbine bi bi passé bi mu daanaatee Eumeu Sène sapeur yee tiim xaw ma fu ma nekk kon tey xam ma loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal dañ koy sante borom bi Lamine li ma la wax dama ni la Eumeu ku ko xam-xam ne du mbër mu ñàkk jom du mbër mu tàppet du mbër mu munul bis mbër bu mën bis la ndax bëri na saan bu nekk te combat jànk yëpp Eumeu Sène a ko bëre musul bëre combat boo xam ne dañ naan bu jàppee diw tay mu ray ko comprendre nga kon tey su bëreeg Modou Lo Modou Lo daan ko jël bu amul benn werante ñu bëriwaat Modou Lo dóoraat ko mu daan dañuy sant xam nga lu tax ñuy sant parce que lépp loo gis rek destin la si doomu aadama te tey làmb ku nekk am nga sa bête noire comprendre nga. Mm. Modou Lo daan Balla Gaye ba mu ko daanee la gëj a dégg muñal ba ni ko Bombardier daanee ca la gëj a dégg muñal ba ni ko Balla Gaye daanaatee comprendre nga mm. te Modou Lo mi Eumeu Sène doon bëreel li may wax chaque jour champion la te mérité na roi des arènes bi mu nekk ci làmb parce que yaakaar naa parcelle gépp tey moo ko boot xuus dem indi leen des arènes moo tax tey ku wax ci làmb mu ñu wax kon tey dama koy féliciter di ko encourager di ko ñaanal mu doon ndam bu ko jik nag. da ngaa wax sànq ñaari wax nga ne 2014 ak 2019 bi mu daan yi mu daan Modou Lo yi mu daan Eumeu Sène ci nga am déception loolu ci Eumeu Sène la lu nekk ci Eumeu Sène loo gis la wala da ngay gis ni buy bëri ak Modou Lo waajtaay bi day doy. déedéet lamin xam nga tey bu fekkonte ne dafa may leer ni Modou Lo mu ëpp capacité Eumeu seen ci lépp maanaam hasardement la ko Eumeu Sène di daanee su may dem damay xam ni may demee ci làmb maanaam dara du ma ci bett parce que damay xam ni Modou Lo mii moo mille chance moo mën Eumeu Sène mais man damay damay àndandoog Eumeu Sène préparation combat. di nekk ak moom xam li ne moom xam qualité yi nekk ci moom xam li mu liggéey moo tax heure bu ko Modou Lo daane damay am mbetteel ba man daf may bett ba jël bi daf may yóbbu yóbbu feneen loolu la rek mais nekkul loo xam ne tey gaw ma ni Modou Lo war naa mën a daan am seen wala dara Modou mun na daan ku ne ci làmb parce que tey ku dem ba nekk roi des arènes mun nga daan ku ne ci làmb comprendre nga tey wax bu ñaaw baaxul te yaakaar naa fi képp koo fi gis am na ay wayjur am na ay soppe te nit ki boo ko gisalee lu baaxam nga bañal ko ko yow yaa ñaan Modou Lo champion la ndaanaan la gaa daan na sama mbër bi nga xam ni mooy sama frère mooy sama mag mooy sama kilifa ci làmb muy Eumeu Sène mais dama koy ñaanal dama koy ñaanal roi bi jikko. waaye nag 2014 bi waroon na laa servir servir leçon ba 2019 bi boo ci ñëw tamit nga xam ni sama waa ji kat bi kere bi ñu koy daan daane nañ ko làmb pire lañ ko daane kon 2019 bi su may ñëw dama cee war a teeyaat deux 2014 bi garaawul ndax xam nga lu tax 2014 bi garaawul pour man parce que 2014 bi Eumeu seen bi muy jël Modou Lo jàppoon ni su jàppee Modou sax da koy bu koy dóor bara sax mu tëdd far mu ñëw loolu amul mu jëla laatal boppam komba bi teg ko fi mu ko war a teg nag préparer ko fi mu ko war a préparer mais lamin làmb dafa sew chaque jour man leen làmb du am doole ñëw bëre daan te ci combat Eumeu Sène Modou laa ko gëmee. comprendre nga dañ koy ñaanal ndam li mu jikko ci barke yonent bi. du am doole am xaaral bala nga ñaanal Eumeu Sène nga ne ci laa gëm ne làmb du am doole bëri daan. waaw. nga jàpp ni Eumeu Sène moo ëpp doole Modou Lô. bokkul sax li ñu liggéey ñoom ñaar bokkul. bokkul man mbër mi dama fa liggéey ba ma tiit jàkkaarloog moom mu liggéey ba ma xam ni kii liggéey àdduna yëpp xam nañ ne Eumeu Sène doole ji indi ci combat bi mosu ko indi. Hmm. yow xam nga ci dara yeneen eh. communicateur yëpp. xam lu ma ci xam non lu ma expliqué mu nekk boo ko nee jàq xam ni kii am na doole. barki sëñ Touba. mais jàpp nga ne moo ëppoon doole ci combat bi. non bokkul. noo bokkul mooy lan Eumeu Sène ku lañ ko dóor mu dëpp. noo bokkul mooy lan. dafa indi doole ju wër. ju ëpp ëpp doole Modou Lo. fuuf moo ëpp Modou doole ci combat bi ñaar yoon. mais déggoo li ma la wax làmb ko daan. ok dëgg la bi ko dal xamul fu ko dal. te coup boobu noonu keneen kum daloon ku dul moom fi mu ko dal mun nga dëpp ji déggoo li ma la wax damay ñaanal Eumeu Sène suma frère la suma kilifa la ci làmb lii nii doon lu mujj ci moom te mu fànkal ko lépp lu ay lu jëm ci moom di ñaanal Modou ndam bii nii mu jikkoo ba mu am ci lu kawe njortam ci barki yonent bi. am na solo yow tamit dama lay laaj ci combat boobu noonu Eumeu seen Modou Lo seen premier combat seen deuxième combat noo noo noo ñaari combat yi. ah làmb la Eumeu Sène champion la Modou Lo champion la waaw làmb moo leen boole woon. mbër mi ki nga xamante ni bëri na xam na nooju xam na caxabal xam na xatar bi man wax rek laa ci xam yow noo gisee ñaari combat waaw gi nga seen premier combat lu ñu bëre premier combat dañu bëre ba ñëpp jug waaw for Modou Lo daan ko te gi nga façon kele bu ne defante nañ ko kii di def kii di dindi ñaari champion noonu la mais xam nga tamit yàlla ak chaque ak chaque jour ku muy faral Eumeu Sène champion lo Modou Lo champion la waaw làmb la quoi deuxième combat gi nga tamit nu mu demee waaw ñëpp yaakaar woon xam nga kaaw day am pour ñu dañuy bëre bu neex jaxasoo xeex for tamit loolu ñëw amaan chaque jour rek làmb day gën a bett gars rek. da ñu cons ko comme ni ñu ko consé mais xam nga tamit làmb dafa garaaw dañ nekk milieu làmb bu garaaw mm. waaw. saison ren bi noo ko gisee bu ginnaaw bu ñëw ñu bëree. ba yàlla dogal moo loo daan ko ñu ne mooy roi des arènes ay combat comme yi ñu jox jot a waxtaan yëpp jaar na fi saison ren bi nan nga ko gisee par rapport ak saison bi ñu génn. Ah, saison bi alhamdulilah rek kon bëri nañ si jàmm xam nga làmb ji dara amu si problème xam nga waaw loolu neex na quoi te ni ñaan yàlla tam xam nga làmb ji gën a dox. promoteur yi gën a ji ren est-ce dox na. làmb ji dox na dox na doxul. waaw ndax ñun ay xale la dañu war a bëri ay 4 ba 5. mbër yu mag yi tamit bëri. waaw. loolu mooy gis-gisam ci saison bi soq gisuñu Ama Baldé bëre gisuñu Siteu bëre gisuñu Sa Thiès gisuñu Yékini Junior Tapha Tine ñoom ñëpp gisuñu leen es ce que tamit loolu buñ koy buñ koy gis mën nañoo wax ne làmb moo ngi dox. noonoo non Lamine làmb doxul parce que ñi ngi fi lim nii ñooy làmb ñoo tax ñu naan làmb parce que boo boo xoolee lim xale yu ëpp caay-caay ci làmb xale yu gën a saf làmb nga lim te bëre booy xool. ñi saf làmb ñi ñuy bàyyi xel Boy ñaa moo ci bëre am seen Modou loo comprendre nga. Balla Gaye waaw comprendre nga mais tey ay Siteu waruñu def année balance Ama Baldé ay Papa Sow ñooñu waruñu def anne balance genre mbër yooyu parce que xam nga lu tax ñoom Yékini sax d'accord ay Bombardier d'accord Balla gay sax d'accord mais tey gis nga booy yooyu noonu dañoo nekk am ñoo xam ne ñoo nekk seen ginnaaw ñu nekk ay responsable yaakaar leen ci lépp. man li may xam naa ko parce que li ñuy dund laay dund responsable laa suma biir kër te am na loo xam ne tey warul si ñoom ay xale lañ na leen promoteurs yi jàppale sponsors yi dugg ci làmb ñooñu mun a am combat bëre parce que seeni famille ñoom lañ yaakaar ñi ne seen ginnaaw ñoom lañ yaakaar Lamine làmb da daan am ñooñu ñëpp am combat début saison bëre daan di xalaat bërewaat te dañuy bërewaat kon bu ñu demee ba ñooñu mënatuñoo am benn sax war nañ xoolaat làmb ji gars yi ñëw jàppale gars yi ñu bëre ah parce que làmb moom mooy suñu sport national tey bu làmb dee di nga gis lu garaaw am na nag ñoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw bëgg a rey làmb di cóolal làmb di wax ci làmb lu ñaaw mais képp kuy wax ci làmb lu ñaaw rek daf fekk sa njaboot nekku ci gars yi nañuy wax ci làmb lu rafet te xam ne ñi si nekk du ñu ay agresseur du ñu ay wëyu ku ci nekk da ngay daan doole pour loo yóbbul sa wëyjur parce que tey képp ku jur doom bu góor yaakaar nga ci moom mu defal la kon gars yi nañ jàppale làmb ñu bàyyi lamb ji ñu bëgg a rey ñi si nekk gis nga yaa gis mbër yaa ngi dem ay États-Unis ñii nga dégg ñu naan toog nañ ñii nga dégg ñu naan ñëwatuñu lii rek moo ko indi parce que seen xel du dal seen fit toogul parce que tey ku ñëpp di xaar ñu naan lamb ji day dee du dee nga dugg États-Unis doo ñëwaat Sénégal waaw na gars yi jàpp. Jadli mbaa dina ñëwaat jël avance. non Jadli champion la Jadli champion la Jadli lamb da koy xaar Jadli ba mu juddoo ba tey ci guerre la nekk ci xare. yoonam tax yéexul yéexul. gis nga xam Serigne Touba dafa am lu mu wax sëñ Abdou Karim ñëwaat wax ko dani moom ndaw lu yàqamti rek la xamul nu koy def yàqamti baaxul jatli tey lépp luy wërsëgam bala muy faatu yi dina ci jot. mais lan mooy waral tamit parce que loo gis dafa am ay sabab ñàkk am adversaire la wala boog ñi mu war a bëreel ñu ñu bëreewul ak moom. ñàkk am adversaire la jatli boo xoolee ñi muy jël sax da ngay xam ne waru leen jël. mais maanaam mbër yi ñoo dul jël mbër mu mën a bëre mën xeex mën lépp duñ la nangoo jël jet li day jël ay risque rek di bërek ay jam ceeri mais warul bërek ay jam ceeri jet champion la bëri nag booy yi dàq bëri ci làmb yëpp ñëpp xam nañ ko boo tuddee jet li nga xam ne ndaanaan nga tudd du sama mag moo tax ma koy tagg wala dara mais ñëpp xam nañ ni champion la mais ay adversaire am dañ koy daw te États-Unis demu fa pour toog demu fa pour dara dafa dem pour préparer wu ñibbi si ñëw bëre doole ñibbi si ñëw bëre parce que xam na ni ñii muy bëreel warul bëre ak ñoom. am na solo sox di bi Bébé Diène bi am ci làmb ji ñii waruñu bëre ñii war nañu bëre lu ci sa boo xoolee xale yi ñoo war a bëre seen biir mais léegi da gis ku nekk day yoot nañ ma tàndal diw nañ ma tàndal loolu day ray làmb bu njëkk ba da gis ku nekk day ànd sur taxaw ni ku nekk tànd sa morom bëre làmb neex. mi ay ah, xool ku nekk day dem xool bu ñu la waree jox diw damay dem xooli lii wala sa ménager noo xool wala lii bu baax bu la ëppee doole sax wala bu la xawee rëy nii rek ñu ne noo baaxul si yow ñu dem tàndal la mag xam nga ñëw làmb ji simmeeku ëpp ko xam nga doo jox amateur lu neex dañu war a gëstu tamit xale ko quoi. waaw ku si mel nii xama nga. yow ak kan. waaw man a ah. ay ñoom. xam nga yow xam nga ñu ma war a bëral sax xam nga bu ma toogee fii tamit di lim xam nga gars dañuy nekk yaakaar ni leneen la. loolu après dinañ ci waxtaanaat man ak yow Serigne Touba loolu après man ak yow danañ ci waxtaanaat ci beneen interview bi léegi Ama Baldé koo koy. Ama yow xam nga ñu ma war a bëral Ama champion la. champion moo tax gars yi nanguñ ko jël nii. kan la war a bëreel. waaw yow xam nga a bëreel. ah champion la kan moo fi sës. yow laa koy laaj man kay yow laa koy laaj. <laughs> ah waaye Modou Lo la war a bëreel. waaw. wala kan. ah ah yow xoolal rek. yow jàpp nga ni daal Modou Lo mooy potentiel adversaire. Modou Lo kan kan kan la fi bëreel Modou Lo ba bëreel ak tanoor yi ci kaw yëpp. Mhm. waaw bëreel ak tanoor yi bu lii tamit day jël ama wala mu. jën kayre koo koy jox. jën kayre ama neex na ko jël. wala kan. ah. jën kayre moo daan daloo ci wax. loolu làmb waaw. Tapha Tine koo ko jox. Tapha Tine ah làmb la de gars xam nga man moom xale laa xam ma dama nekk si affaire yi nii <laughs> waaw. <laughs> waaw <laughs> nangu la xam nu mu demee kon nañ laa coox mi nangoo xam nu mu demee Ama Baldé koo ko jox yow. Ama Baldé Modou Lo Ama Baldé Modou Lo mooy làmb ji fu mu toll nii buñ bëggee wax dëgg rek te làmb dundaat làmb tegu fi mu war a tegu waxuma cadre far wala dara ndax Ama Baldé. bu bu bëreeg Modou dina am teranga bu bëreewul ak Modou dina am teranga ndax dina bëreek beneen mbër mais Ama Baldé Modou Lo mooy lamb bii dekkilaat lamb mooy lamb guddi yi ñu toll nii moom la àdduna di waxtaanee combat la na taxaw ñoom ñaar ñu bëre bu ko defee Ama daan ko ci fair play continuer suñu parcours du ñu Ama nag dama am dama ko waxoon ma ne ko muuru baaxul ci comme tolloon mbagg te heure bu heure bu tasee comme tolloon taxawaay prouver loolu noonu Ama nag nee na tollawul ak moom waaw kum tollool mbagg ak taxawaay nga wax mais ñoom ñaar tolloowuñ mbagg tolloowuñ taxawaay waaw te bu arbitre sifflé man gëm naa ne pël bi day def ni mu doon def dox attaqué gagné ñibbi. attaqué Modou Lo mbaa wóor na ci Ama. non lu leer da koy attaqué. pied droit lay teg de. li ma la wax amul mbër mu muy xaar ci àdduna. mais pied droit bi muy teg attaqué Modou Lo bu wóor na ci moom. na Modou Lo teg ñaari tànk yi pour mu neex na wut yeneen ñaari tànk teg ci ginnaaw. bu arbitre poussé loxoom ama dox ci kawam bëreeg moom. mais damaa gis Modou Lo teg pied droit yi ñii teg pied droit yëpp dañuy am problème pour bëreeg moom. non non loolu waxi làmb la rek lamin gis nga làmb bu kii daanee kii dangay ngay dégg ñu naan lii tax lii ko indil problème ndax la man bu may bëreeg yow tegal tànk bu la neex dañuy bëre ba ju dañuy bëre ba laal fii lii nga daan ma wala ma daan la rek. wóolu nga Ama Baldé ci Modou Lo. non parce que xam nga lu tax xale la te borom jom la bërekat la lu Modou loo mun amu mun na ko. lu Modou Lo ñeme Ama ñeme na lu ko raw ñoom ñaar làmb la dañoo bokk ay qualité bokk ndiroo lu bari ci làmb comprendre nga combat boobu mënut a ñàkk Modou Lo nag am na plein droit taxaw ni du ma bëreeg Ama Balde mais bu ko defee itam warul parce que Ama adversaire am potentiel la mënatu ko bañ. yow jàpp nga ni ñoom daal war a bokk ci ñiy suqali làmb. waaw waaw lu leer lu leer waaw. Ama Balde Gris tamit bu neex sax. mais combat Modou Lo Ama Baldé la askan wi bëgg. Ama ah, askan bi sax ñi ngi wax Modou Lo Tapha Tine. Modou Lo Tapha Tine non neexul déedéet Ama Baldé Modou Lo moo neex boobu lépp lay am Modou Lo baat Tapha Tine dama koy joxaat Balla Gaye mu jëli jiwaat revanche am foofu. na ngay jël Tapha Tine jox ko jox mu jëliwaat revanche foofu. waaw mooy làmb ji. Siteu koo koy jox. Siteu dama koy jox Papa mu bëreeg moom làmb àdduna la. Siteu Garga Siteu Garga Mbossé waa ba neex na. guy gi Papa Sow. guy gi Papa Sow làmb la tamit gis nga yooyu yëpp ay làmb la Lamine ñoo bokk génération amul ku ci raw moroomam ci ñi ngay wax nii. Reug Reug koo koy jox. Reug Reug kum jël baax na. déet amul jël baax na mën naa fi wax ñi ma fi lim yëpp ku nekk nga wutal ko adversaire ngeen Reug Reug kum jël baax na. waaw xanaa du ay làmb nga may laaj. Reug Reug ku neex nga bëgg. Ah. Reug Reug non non Reug Reug rëg rëg rëg tey moo ko doon jox ci làmb nag wax dëgg fa yàlla nag mënu ma cee xuus ko waal. xaw adversaire am daal xaw ma adversaire koo jox rëg rëg yow. ah. yow. Ah, man xam ma làmb ji man booy laa rek nekk fii. ma ne waxal nga naan booy laa waxal mu war a bëreel xam na ko waaw ñu ñu mu war a bëreel ñoom muy loolu. rëg rëg guy gi combat. ah ah làmb la. yaa wax làmb la ñun moom nekk fii nii rek. saa ci si si ñoom. waaw loolu làmb la ba ci saakees Diène Kayre làmb la Yékini Junior Diène Kayre làmb la. ñooñu duñ jël duñ jël Diène Kayre. lu tax rawuñu ko. raw làmb ji fii muy loolu. yow daal sa bopp nga fi nekkal ak sa waa écurie. waaw ak sama ñu ma sëkkal am di jaamu ku si mel ni Sokh Ama Baldé. loo wuti Pikine nag yow tamit yaa ngi Medina loo wuti Pikine. non man xam nga man nit tey booy xool da ngay wut ay nit xam nga lu ma la wax. man képp ku ma yàlla booleel may dund ak yow teraanga dund ak yow lu naas damay dund yow lu naas te Pikine kan moom fa yóbbu sama papa Abdou Salaam boobu maay nekk lu ndaw dugguma làmb sax Abdou Salaam mooy jaay yàpp Rissing si moom laa doon liggéey boobu xaw ma xaw ma sax luy làmb ñuy dem Pikine di diis xam ma lu ma la wax waaw ñuy nekk si jaamu ama ñuy ñëw foofu ñuy xam ma jaamu mu boole ma moom te Ama tam boo xoolee sama mbokk la quoi ñëpp ay Guinéen lañu ay pël ñu ay laxxat lañu kon xam nga dañu war a sekk jaamu gis ma yéene ma boppam ku si mel ni sama père Malaw Seras ñoom ñëpp sama papa Abdou Salaam moo boole ñoom te kooku nit yëpp nit bu ma booleel dama lay teef li fukki loxo. waa léegi du ngeen dem dekki làmb Guinée ji kon. xam nga loolu yëpp ñu ngi ñëw xam nga daaw boo xoolee sama papa Malaw Seras moo ma yóbbu Tivaouane Peulh ma nekk fa mu lël ma. waaw sama combat bi mu leen ma entraîné ma mais ren yàlla dogal ni man ak sama champion bi ñoo ànd sox mu ne ma ay mbër jugal ñu dem Gambie ma ne ko ay ca nen dem ba ma waxtaan ak sama papa Abdou si gouverneur yi di liggéey ñun ay xale lañu gi nga booy liggéey defal sa xol bi na naaj man life kaan laay dund xam nga lu ma la aywa am na solo Bébé Diène léegi nag fi may jeexale ak yéen mooy pay per bi nga xamante ni moom la ñu am instant bi comme sponsor parce que sponsor yëpp daw nañ système bi soq noo gisee. waaw Lamine loolu moom mu koy rafetlu wax dëgg fa neex yàlla man moom wóor na Rasulullaay dama ko apprécier quoi parce que dëgg rek moo neex yàlla tey tey bëri na tey làmb yoo xam ne tey promoteur bu bu wéetee muñ PPV boobu moo tax. na ci gars yi jàpp mu gën a jëm kanam quoi parce que làmb tey lépp lu koy jëmale kanam rek mooy li koy dàqal parce que boo xoolee làmb yi mujj am yi am PPV yëpp làmb yi daa mel ni mu war a mel. boo xoolee ci combat Gris 2 promoteur bi boo xoolee ci combat Lac de Guiers Boy loolu moo dimbali promoteur bi boo xoolee ba ci Eumeu Sène Modou Lô comprendre nga loolu moo leen dimbali kon perpétuité boobu noonu na ci gars yi jàpp loolu gën a jëm kanam parce que tey am na solo ci làmb trop trop trop trop maa leen di ñaanal bonne continuation te xam nga ñu gën a jàpp. mais est-ce que état bi tamit warul warul warul def influence ci opérateur yi fi nekk ñu jàppale làmb ji. non loolu gars yi wax nañ ci ba sonn te gisaguñ différence. Macky Sall suñu papa dañ lay ñaan xam nga dimbali ñu ci làmb parce que làmb li ci jëriñu ci ay doomu aadama ci réew mi bari na trop du mi kese tey lamb li nekk ci ginnaaw di ci dund mbër yi dunduñu ko barke sëñ Touba parce que mbër tey buñ ko fayee kase dina wër ay sëriñ ba tas booy wut ku ko may xaalis pour mu dund mais ñi si waaw ñi si ginnaaw tey demuñ ci sëriñ ci sëriñ te ñu ngi lekk ci mbër yi seen wërsëg la yàlla na yokk mais nañ jàppale làmb parce que monde làmb dafa doy waar bar sëñ Touba. yow tamit noo gisee loolu système bi ak ak ak yi nga xamante ne làmb ji amatu. waaw làmb ji dañu war a am sponsor te pipil bi boobu noonu tamit naaj na ko waa pour man lépp luy doxal làmb rek dañ ko war a téye jàppale gars ndax làmb ñu sutura dafa bëri te ñun dañu yaakaar dañu yaakaar ak xam ma xale yi tey boo demee koñ soog dañ ko yaakaar boo demee sama koñ. dañ ma yaakaar noonu lay demee kon lépp luy jàppale làmb rek ñuy ñaan yàlla mu ñëw ci barke sëñ Fallou làmb jëm kanam. am tàggatoo. waaw di nu may tàggatoo rek di nuyu waa Medina di nuyu sam papa Abdou Salam di nuyu ñoom Momu Naar di ñoom ñoom tubaab di nuyu sam papa Assane Ndiaye xam nga di nuyu sama yaay say di nuyu sama gaay Badara nekk Espagne ñoom Mbacke nekk France xam nga sama gaay nekk États-Unis ñoom ñëpp maa leen di bëggee xam nga di nuyu waa Medina ku si mel ni ñoom Tafa ñoom Abdourahman ñoom poste courant xam ma ñoom xam ma ñoom laay gars dañuy sonn si man barki Serigne Touba di wax tamit waa autorité Medina yi ku si mel ni Bamba Fall monsieur Cheikh Ba xam ma na si ñëpp ñëw jàpp ku si mel ni Seydou Gueye xam ma na ñëpp ñëw jàpp ku si mel ni xam ma sama gaale bu may nekk ñoom Oumar Anne xam ma maa leen di bëggee su ma nekkee Medina fa laay nekk xam ma ñoom Cheikh naa ñoom mbay xam ma ñoom caat maa ngi nuyu ñëpp ñoom jabel ñoom xam ma xam ma sama gaay maa di nuyu ñoom ñëpp ku si mel ni ñoom tubaab sama pro bi faa bambara maa koy bëggee bu baax maa ngi nuyu waa Medina képp ku yeewoo Medina rek man Bébé Diène maa lay nuyu Grand Dakar Fass Colobane ñëpp bàyyi ma di nuyu ñëpp di nuyu sama doom yaay sox di ko ñaan yàlla yàlla ko yàlla may ndam ndax nit tamit ku la woon teraanga rek ngay àndal yaay moom borom baax la daf ma woon ñëw fii lépp moo ko fay lu ñuy entraîner lu ñuy def yëpp barki Serigne Touba di ko bëggee naaj waaw di nuy sama gaa yëpp di nuy sama nijaay di nuy waa Tiwaan Pël xam nga naw na yuraade kala pula furaaju kono waɗi guine xam nga guine kala ko pula furaaju won toon nahi vraiment toronollam ɓiɗɗo mon on allah waɗamo roi des arem ƴettamo nowo guine e wa sandiñeeri fof nahi wurore kala pula fura xam nga ni tami amol rul sa mbokk sa direct waaw tey ñoo ma yor xam nga. dañu sax waaw di la nuyu rek ndax nit amoo lu dul sa deret képp kuy pël Fuuta maa lay nuyu di la bëggee waaw di nuyu sa mboq tamit séeréer yi xam nga dañ may jàppale tey boo ay séeréer ñoo may ñaanal waaw di nuyu sama ku mel ni Père Diaw Ba ku si mel ni Mamadou Ba Père Giran Père Doudou Ñaan xam nga maa leen di bëggee ñoom ñëpp ku si mel ni sam papa Samba Touba. maa koy nuyu bu baax a baax sama papa Samba Touba jàpp na si bu baax di nuyu waa Medina yëpp rang mooy gaaw. gaa muy gaaw am na solo bébé Diène sox looy tàggatoo. may tàggatoo di sant Serigne Touba rek di santaat Serigne Touba di ñaanal suma yaay gudd fan ak wér gu yaram yaay booy maa ngi lay ñaanal bu baax dundal dundal ba fekkee suñu njëriñ ñun ñëpp bar Serigne Touba di ñaanal sama nijaay Jibi Jola maa ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal Kine Diagne sama yumpaañ di ñaanal tamit suma soxna. jikko Diouf maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di ñaanal sum papa Bure Diouf ñoom Omar Diouf Ndeela Diouf xam nga ñoom Maye Diouf ñëpp Ibrahima Diouf ñëpp xama nga tey di sant waa Pikine nag bu baax a baax a baax di santaat waa Pikine waa Ginaaraay maa leen di sant di leen ñaanal di ñaanal sama doomu nday Mopol borom Paris. combat bi soog combat la combat bee passé gis naa li nga si jàpp comprendre nga Lamine nag mu ngi lay sànni ay xeer lu ne mu ngi koy wax mais yow champion nga bégee gaynde gi maa lay bégee bu baax di la siyaar. aywa Youssou Fall JT Lamb la woon comme ni ngeen ko amee rek tous les fii ci Gambie White House di nuyu tamit Khadija Sow moom lañ ko tëjee woon moom lañ koy tëjewaat di jox ñëpp rendez-vous samedi ñëw incha allah.